mbokki daara ji asaabu cheikh ci juma famille sen ci daara ji ci bindab benn ak benn la asaabu cheikh tijaani ci njiitu alaj kob sa caam ci jaayit man bi dañ ko waroon jeexal démb tuuti ci desoon waaye seetluñ ko ndax ni mbir mi ñu ngi ci paasab ñaar téeméer ak juróom ñetti ñaar maa ngi la doon limal mbaax gi nekk ci yonent bi ak li ko yàlla jagle wabil jumlati su ma la bëgg a wax daal wax ci foofu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci gën jee li gën a gàtt ala naa fi moo gën a kawe ci nit ñi qadran dayo wa arfaahum moo leen gën a yëkkateku zikran tur waa asamuhum moo leen gën a màgg mahalan place wa akmaluhum moo leen gën a mat mahal ci lañ ci rafet bu faral ak ngëneel yépp moo gën a mat nit ñi faysa nasarta boo xoolee ila xisaali kamaali jëm ci jikkoy mari alati yi nga xam ne yow moom xayru muktasibatin kenn mënu koo fàggu ndax dafa am loo xam ne may yàlla la du fàggu soo seeti jikko yooyu yëpp wajat taxoo da nga ko fekk alayhi salaatu wasalaam xaayisan moom moo làq li jamea yëpp mooy ki xam ne moo ndar képp mbooleem mbaax yi ak jikko yi moom moo ko làq muhitan mu fekk bi sa taati mahasina ci way tasaaroo yi rafet ya rafet rafet yi tasaaroo ya moo ko képp doona xilaafin amul wuuti nag bàyyi na naka nakalatin axbaar ci diggante ñiy toxal xabaar yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci benn kàddu kon nag kooku wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sahbihi wa léegi nag ñu ngi dem ci maqsad fi salawaat ay julli yoo xam ne julli tànneef la mooy maqsad alati julli yoo xam ne war a doon na fii ci moom cheikh min faydi fadlihi bàyyi koo ci fay dóob ngëneelam ba ak sarif bu foor ba day toog rek benn julli na cëpp bàyyi ko ci faydu ngëneelam ba salaa salaam fa àqulu maa ngi wax nag man Aliou Alassane wa billaahi yàlla rekk nag astay lay dima ne koo ci li may def ndax wala xaw la amul ko am pexe amul ak xoota amul ko am kàttan ilaa bi ali janaabi lu may ki nga xam ne moo kawe ci côté kon foofu lay sukkandiku may wax awalu ma nabdawu li may njëkk tàmbalee bii ci moom sikuru salawaat mooy tudd ay julli alati yi xam ne am la aha sar na ko mooy dikte na ko maolaana suñ kilifa rasulullah sallallahu moo ko waxal di ko sax min fayda sërif yi min fayda fayda yi ca sëri ba ak sërif bu for bi yàq sa tan ci yëg laa ala seyxinaa suñ sëriñ bi abil abbas rasululaayi moo ko sax cheikh abil abbas ci yëg su ma loolu laa njëkkaw loolu laa indi suma ma nat ba ñu tafal ko nag bi surooyaa firi ko dinaa indi sa téere julli gi bu ma indi nag ma firi ko saraa ko mooy firi euh, kuñ ko firi nag li Cheikh Randiane Sow bi moom ka ko jox moo ko jox ba pare saraal ko kon firi nii ñuy firi te liñ bëgg a wax fi léegi firim rasulilah laa mu firil ko Cheikh tey nag mu ñëw ci ñun ñu leen ko firi radiyallahu anhu anhu al awal bu njëkk ba samaha tudde na ko seexlan sëñ sëriñ bi radiyallahu anhu yaqootatul xaqaiqi yaqootatal xaqaiq ooru xaqiqa yi xaqiqa yi seen oor ya loolu la ko tuddee moom tu fi fi taarif yi ñu bëgg a xam nag bi xaqiqati sayidil xalaayik pour ñu xam nag xaqiqat sayidil xalaayik baaba déglu ma bu baax li may wax de ah ah moom Cheikh moom lañ jox yëf yi pour xamal ko kan mooy sangab xaqiqatu sayidil xala maanaam bi xaqiqati sayidil xala xaqaayik xanaa kon xaqiqa mbir du moom lañ koy xamal xaqiqa sayyidul xalaayik moom la ñuy moom lañ koy wax moom la ñuy ci julli ji ba boo julli gi tëggin bi da nga xam kiñ koo moomale rëyaayam mu fekkee wala bokk war na ko mën a tolle war na suhaa yax ba allah allah allah foofu la tàmbalee ay yow laa ay yow laa ay yow laa xanaa laa dafa dafa teew ci ñetti palaas bokk bu nekk nag mu jaar ci tukki laaw un laaw deux laaw trois doo ko dikk nag ne ko allahuma yow allahuma anta yow kat allahu yaay la loolu laa bëgg ngeen xam na yàlla ne yonent bi ko jox loo rasul bi ah ko jox loo moom ko jox loo allahuma it mooy la ñaar lañ kon de waaye ñaar yi nekkut ñaar la allahuma anta allah ban laahu allazi laahu bi nga xam ne laa ilaa amut beneen laahu illaa ante yow dong yaay laahu amut alaali yaay ci kaw yi lépp fi asamati infiraadi xaadirati ahadiyati yow laahu kaw ci màggaayu sa wéetaay ca sa péeg benn ga xam nga aajiyatu nee naa la mooy péeg wéetaay moom nag moo nekk ca kawe yaayu màgg ak wéet ak péeg boobu dafa wéet ca wéetaay ga moom allahuma allahuma dafa wéet foofee ci wéetaay ga moo tax doo am wéetal mukk du ci biir du ci biti euh, allati ka nga xamante ni maanaam xaqiqa ba nga xamante ni sihta fiiha coobare xoo nga ca moom bi wujjoodi su onika xam sa xam yi sa mbir yi foofa nga defee sa coobare kat pour xamal yi nga bëgg xamal yi ca ahadit xadrat boobu ca nga coobare ko kon nga amal sa mbir yi dana ko firi waaye dama la ko firil pour nga dégg bu baax ndax fii moo lay xamal ne kon pay bi amal ami kon mooy aadiya ci lañ ko amalee te aadiya nag kan mooy patron aadiya nga xam ne mooy diw foofa nga coobare xoo pour amal ah, sa wa an nga sos min nuuri ka ca sa ga ca mooy ca sa mooy ay samanga alkaamila mat wala alkaamil gu mat foofu nga sotee sa leer mat ga nas atal xaqi li nga xam mooy sosu xaqoo foofa la la la ko amalee dëgg ndax foofa moom pays la boo xam ne lu fa sotoo rek xàqu lay doon moom aad moo tax la fa génne ci kanamam ñu ne ko Muhammad yàgg yooyu yëpp ah xàqu foofu commencé dawal xàqu mu moo tax foofu la risaala ak bi rasul xàqu bi mu dawee wa ana taxaa yaa wa jaaltaha nga def ko sooratan muy photo kaamilatan boo xam ne photo bu mat la taamatan bu matale yow yaa ko def ko yaa xaj la nga sosee ci xàqu ba nga sos ko def ko muy photo boo xamante ni photo ba bu mat matale sëkk di nga photo boobu nga xam ne moom la photo bu mat bu matale ba booba nag mooy kaa xamante ne mooy keneen amaana ba te ñu tama nañ ko wax mooy kooku nga xamante ba lëtta doj lëtta sa asamaan ak suuf ak doj mën nañ koo régler waa jooje borom photo ba nag mu ne bu xéet na indi wa jaaltaha sooratan kaamilatan taamatan tajur da nga xamale min haa ca photo ba bi sababi wujudihaa ci sabab am nga loo ci amee yaa ngi ko ci amee min infiraadi ahadiyatik foofee ca nga amalee wéet ak sa wéetaay ba bi maanaa ca ba nga indee photo booba taxawaay mooy mooy wan ne yow yaay nekku wéet koo xam ne amula wéttal moo tax photo boobu loolu la njëkk a signalé yow yaa nekk sa aadida te wéet nga ci wujooda bi sababi wujoodiha min ina fi nsilaadi aadida ka qabla nasati asbaa yi balaa ñoo xamal e, bi maa ne yi yaram yi foofa nga wane ca foto boobu neew yaa wéet te wéetaay ka waa lii lii ko amul fotu bu ko boo ko waxee mënoo ko wax te kuñ ko waxal it mënoo ko dikk kon nag mi ngi nii lu ñu leen wax rek lu yàgg yàgg dañuy indi loo xam ne moom ñun dañ ko indi ci gàttal waaye mi ngi nii moo tax li ma la ko pays wéetaay amul wéttal ba fi may wax ak yow te du am wéttal def na ko ba mu koy amal lu jiitu yaram yi xam ba asbaa yi am la ko sos tànn ko moom poto boobele poto boobu la muy wax ne mooy nag yaay kenn moo tax wallahi laa laa li amarkan billahi ñaari ahmad amul foofu la ko jëlee fa ahmadu fardun la jawharun la lan yu xasama seetal fi ko bàyyi seetal fi ko bàyyi bàkkee si fii fii nii ci fardaanit bii nga xamante ne fardaan fardaanit aadiyatu aadiyatu ko tagg fii yow ba koy tagg yow nekkoon <laughs> ah yow mii yaa ko def xam nga ne kii kaka gis te ko taggee lii keneen la wa jaalta yaa def minha ca photo boobe minha fiiha jëlee ca moom ca moom bi sababiha ca sababam ndaxte moom loo dégg sabab lu gis am na lu ko sabab ca nga defee inbisaatal ilmi ah fireekookaay xam-xam fireekookaay xam-xam foofu la nekkee tëj ko dafa am ñoo xam tàmm nañ ko xam ne boo dikkee rek fi nga jaar naan bi saw bi inbisaatal ilmi wa jaalta yaa def min asari haasi l asanat yow yaa def yow yaa def gis ko njëkk ngay wisaare jëm ya min yaa ko def yow wa jacalta min asri haati l asamati ci jeexitu màggaayu gii boobu màggaay wa min barakaatiha ak barkeem ya yëpp ñi nga xamante ni rahmatullah ak barakat fonk ko foram ko génne si ba mu xamee moom kookee ca sababam nga defee yow wa jaalta min asari haatil asamati wa min barakaatiha sabahatu suur yi jëmmi yi ba nga xamalee photo boobale ci ah màggaayam ba ak ci nga amale nag photo yi nag ah saba foro yi ku foro ah, ah, ci nga ko amale jaami daxaa moo xam photo yu dëgër yi ni di daka tey doj yeeg bag ci foofu lañ bàyyi ko wa mu taarikaa yaxam rew mu yëngatu foofu lañ bàyyi foofu sax boo lañ génne wa anataha nga aj ko bi iqbaali tahriki wa nga xaj ko muy e, taataan maanaam mu nangu yëngatoog dal foto booba ca nga ca nga dikkërlee yëngatoog dal luy yëngatu ak luy dal ma ngay yëngatoo ci yëngatu gookee ma ngay dal ci da wa jaaltaha def nga ko fii ihaatati nisati ci biir peegu wegu foofu nga ko def nag biir miir boo xam ne miir wegu miir boo xam ne xamul miire te moo wër lépp foofu nga ko def min kaw ni xaa ndax nekkam nekk qabilat minha wa fiha wa laha ndax dafa nekk moom foofale waaw waaw baax waaw dama ubbi ko mën minha wa lu ci ñun de waaj waaj waajee ñu ko aay dégg minha laha wa fiha wa minha ah moom ca la ca nga nattarlee ca nga nekk gam nekk dafa nangu lu bàyyi koo ci moom ak lu nekk ci biiram ak moomale gëm moomale boppam yaa ko ca def wa tasaata ak tas tasee tasaaroo aswaroo foto ya albaarisatu yi génn photo ya nekkoon ca moom te photo yi génnee ca photo ba gis nga ko de li ma wax kon photo bi benn photo ba photo yaa nga amoon ci moom nag mu tasaaroo photo ya ya génn photo ya bañ génn lu njëkk bi iqbaal wujjóodi ñu teer wujjóodi nag sa photo teeru la sa photo teeru ba kenn ku def photo teeru ko nag ñoom ñëpp ñu génnee foofu ah, ñam ñu dem génn foofu bi iqbaal wujudi ah ñu teeru ko wa qadart nga nattale lahaa fiiha wa minha nga nattale ko ñeel ko ca biiram tey luy génn ca moom lay ko maa yumaasiluha luy tolloog moom benn boo xam ne photo bu génn dogalal nga ko dikk tolloo fekk moom sànqaleñ ba génnee ca moom de sànqale mu indeef jëmm ji war a tolloog moom moo tax la mu génneel ko maa yu maasela li maa loo xamante ni yu ko ma nga dëppoot arkaana tuwariha numéro yi photo numéro yi photo ya photo yi nekkitee fi ay milliards yi milliards ëpp na cent cent et photo bu nekk am na numéro boo xamante ni moom ngay euh, euh, dëppoon kenn du mooy moo tax euh, bu ne war nañ mi isaaxa waa maa dala saay maa ngi génca biddiw bu wàccee seen numéro ba du la réer kenn ku ne numéro ba nga war a wàcc xam ne xam naa ko ah moo tax gis nga lii ah wax dëgg yàlla war nañu góorgóorlu lii Cheikh wax na ko bu yàgg ba léegi ci ngay xamee kon nag amul loo xam nekk na bés tey xanaa moteur bu ñu moon ci tey waaye lu amut am am ñàkk kii jëkkër yeey ànd ak jabar ya ay numéro di ci génn photo yi numéro yi génn ñu ko de ko ci def dagaloon ko démb bu yàgg yàkkamte fi nekk rek ah waxakkamte yaa ata aliha ci kooke bil buróot ñu génn li tu addi pour nga def joxe bii ci moom yaa attini nañ génn fañ nekkoon pour nga mën a defee ci ñoom maa xadartuhoo aliha la nga def la nga la nga ko amaloon pour ne lii a tax ma amal la génn nga leen pour ñu doxe doxeloo seen seen seen kiiwoo ñoom ñëpp moo tax gis nga kii moo kii moo julli ci ñoom ba ñëkk te ñàkk ga kenn ku ne nga nekk ci sa dégg nga maam sa photo ba mu indi leen ay numéro yu dëpp ak ñoom mu génne leen na ca fële pour ñu dikk ànd seen numéro bi plus ak moyenne ñu daje seen courant liggéey doo ko mën a am yow yaa ko def li too aji bii maa xadatoo aleha wa jaal taha yaa def loolee man qoosatan ña ngi ko bind fi lawhiha ca lawhum ba almafos lawul mafos mooy alo ji xam ne ci lañ sa ci lañ ci lañ dajale lépp ya def lépp ma nga daj lawul mafos te xam nga lawul mafos mooy saay rek yalla ka saay ron ka ca lañ bind lépp loo xam mi ngi nekk ci moom àll si ala alwa ji xamante ni xalaxta nettaalee nga ne ak barakati barakati ci barkeem yow yaa ngi ko amalee la am la te barkat alawa joojee nga amale am waa kamte yaa atte ale ci moom bi maa arata la nga nama laa yow yaa dogal ne ko li ma yow ci lawul ma fuus bii nga dikk ànd sa numéro bii mu wàcce la lii laa bëgg ci yaa att na ko lii laa bëgg waa kamte ale moo tax dogal la nga waroon def dogal nañ ko bu yàgg waaxamte alaya bi ma arata laxaa wa bi ma turidu bi biha biha yi pare yi pare lii laa ci lii laa ci nam yi pareegul te ñëw buñ paree lii laay na ma ci am buñ paree balaa ndéemi lu ma xamut mi ngi ñëw ah yi paree nii laa yi pareegul lii laa ci bokk wa arabta bima arabta laha wa bima turidu la biha wa jaal te yaa def kullal kulli lépp ak lépp gi lépp dafa am léppaat yaa ko def sa lépp lépp ak lépp gi fii kulli ka ci sa lépp ga sa lépp ga ca nga jëlee lépp ak lépp gi la ilaha illallah dégg nga de xam nga dafa am lépp ak lépp ak lépp mu mel na ñu ne jamo ak jamo ak jamo yow yaa def kon nag lépp ak lépp gi ci sa lépp gi wajaaltu yaa def xaasal kullul gii lépp lépp loo fi gis yaa ngi ko def min kulli ka bàyyi ko ci sa lépp ga wajaalta yaa def alkula lépp nag xabdatan muy tànk min nóori asamatika ci leer sa màgga rooxan muy rooku yaa ko dafa roof ku ne yaa ko pooseel ah la nga xam ne ba nga ko pooseele mu dox wajalta alkulla xabdatan min nóori asamatika rooxan li ma li yaa xam ne anteew alum kelloo nga la ko ñel ko eh, yaa ko fa def wa mi maa la yaa xam ne wa mu ahlul làkk kenn ku ne yaa ko defal ca fa mu nekk ca sa biir dank-dank ba te mooy fa nga ko tëj yaaqal dafa roobu li nga xam ne li ma anta ahlun la woo roobu gam yelloot yaa ko defal wa maa huwa làkk ak li nga xam ne moom la la xeelalee yépp yaa ko defal ah, ñu ngi ci julli gu for gi nga xamante ni moom waaj a ko jox waaj as aluka maa ngi lay laaj allahuma yow allahuma bi martabati haasi la asanati ci martabaab boobee màggaay wa itlaaqiha ak tàlleeku waayam amul yam waay dégg nga maa la koy laaj fii wujjin ci am waa demit ak ñàkk luy am ci moom lay amee luy ñàkk ci moom lay ak moom lay moom ñàkkee maa ngi ñaan ci martaba booba an tusali wa tusalima nga def salaatu ak salaam ci kan xalaa tarjumaani lisaanil lisaanil xadami ki nga xam ne mooy jottali làmmiñu ji làmmiñu xàq yo xàq ba ka koy jot làmmiñu xàq wa ka koy xam nga xàq du wax ñu jot ñu jot waaye dafa am ko ko jotlil kooku lañ dundee tarjumaan li tan xidami nga def salaatu ci moom ndaxte boo defal salaatu ak salaatu ci moom moom itam mën a wax ngi laa nga defal salaatu ak salaam xaalaat tarjumaan li tamit xidami nga defal ma nga defal ma ca salaatu ak salaam ñu ne koy mu ne mel ne alaw na ko kooku mooy kan mu ne allawha alawa ja almafuusa ja ne fa lañ daje lépp kooka laa bëgg nga defal ma salat ci moom luñ jot ci kàddu moo ñu ko jot ni lépp loo xam ne xam na ci suñ am ji ma nga ca ña ngi ko noté foofu kooka laa bëgg nga defal ñu salat ci moom ak maaw gii julli defe ngeen ne moo julli gii ku xam xel déglu lii da xam ne lii du julli ah, xanaa ñu tëj ni kon xanaa war laa dégg lii nga dem ne day wax ne set yow demal julli julli gu mel naka ni wala nga kii wëndoori ka ñu ne ko mel ne mooy kan ki nga xam ne mooy làmmiñ nga xam ne mooy jot li xàqu ba mu ne wëndoori mooy leer asaar yi gay dox almamdoo di nga xam ne ñu ngi koy tàllal leer gay dox ñu koy tàllal ñu tàllal ko muy diw diw diw diw diw diw wala fii fii fii fii fii wala lii lii lii lii lii leer gay ñu koy wax kii wala lii wala fii kookee laa wax nga defal ma julli ci moom ndax wax na la fa ne jaami ak xaraka muhariki buñ ne lii ah naka doj wii wala place bii yëpp ak nit kii yëpp ña nga bàyyi koo taawee koo ca ña nga ràññaan taawee koo ca foofee allazi ka nga xamante ni laa yudrikoo kenn mun ta xam dayom daari kun kuy xam dayom mooy ku jot bu ñu dira adra dara ku moo jot ku mën a dem a dem ba xam nam nga mën a xam nekki na wax kookee laa bëgg martaba booy laa bëgg nga defal ma julli walla yeneen koo mën a ko joti laayikum ka koy dab martaba nga xam ne boo koy dab mënoo ko jot kooka laa bëgg nga defal salaat kooka nga ne mooy kan mu ne ak siraatal mustaqim boo léegi siraatal mustaqim kookee laa wax siraatal mustaqim yoonu sa yoonu juba xam nga yaa ngi ko demoon mooy julli yëpp dina am kii def siraatal mustaqim ñu santaane ci sariya yi ak yi dafa dikk pour jàngale moom mooy siraatal mustaqim moo tax nag ñaari faasi jàngin bi muy xiraatu ak tilaawatu su fekkee ni xiraa ci ngay yam mooy làmmiñ ci ngay jàng rek mooy lii mooy lii mooy lii mooy lii foofu nag bokk nag ka deme nag mooy kii mooy kii mooy kii kële daf koy defee ci tilaawa kële daf koy ci qiraa kon nag ci yaa xamante ni mooy siraatal mustaqim yow nga ne ki nga ma bëgg matt ba mooy ndax moom moo dimbalee xàqu ca xàqoom ba ndax xàqiiqa la xaqiqa nag bu dikkee su dàqul xaqiqa ma nekk xàqu bu xàqu dikkee du mën a liggéey ak moo tax nag muy naaj xàq man nag yow nag yaa ngi ma bëgg a jaaxal <laughs> dégg fa muy daana fa muy daan ah dëgg-dëgg yàlla dana jaaxal nit nag nga ne koy wax ma ne àllahuma yow àllahu seetal dama eh, lay wax jawharatu kamal ki tëgg julli gii moo tëgg jawharatu kamal bu ngeen seetee laax de waaw bu ngeen seetee ba xam li ma leen wax da ngeen xam ne nii la demee ah moom julli gi yàqootatul xaqaa'iq xam nga boo xoolee ni ñu ko tuddee rek xaqaayiqi dafa am buruutul xaqaayiqi dafa am yàqootatul xaqaayiqi may dégg de xuruusul xaqaayiqi moom lañuy ñuy damaan pour mu dem ci yàqootatul xaqaayiqi li ñu julli mbaa di nga wax <laughs> waaw <laughs> te ñun waa nga xam ne billaahi billaahi fekkoon ci dañuy wax ne bu ñuy wax kaamil kaamil kaamil kaamil bu fekkee ne am na ñu ngi ko doo ko teg bët ndaxte lii nga xam nag buñ ne wuruutul xaqaayiq ak buñ ne yàquutul xaqaayiq waaye xam nga ne ñoom ñaari ñoo mën a ànd kon nag julli gi moo tudd ah, oori xaqiiqa kare na ñu ne ko xaaral si xaqiqa ya cey mbaa yéen may dégg waay allahuma yow allahuma xam nga man moom firéegul man maa leen di firéegul li nga xamante ni moom <laughs> moom firéegul waa léegi su fekkoon ci li ñun dañoo sukkandikoo ci firéem nga mën naa ne ku sukkandikoo bi may digg firi baa ngi ñëw si de waaye ku xamuloon fan dalee ak nam tëddee ndax lu ma wax ni nekk na ci nekk na ci bi nekk na nekk na ci digg yax bi te mooy yax bi boo ko firu doo digg yax bi lii lii nag mooy mooy tafsir tafsirul alfaas firi baat taxut nga firi maanaaya firi maanaaya taxut nga firi xaqiqa ya xam nga na nga gisee xaqaayiqe ak nise bi noonu lañ dikkee nag xuroosul xaqaayiqe ak yàqootatul xaqaayiqe ah ak aynil maarif Euh, kenn ku ci nekk bam dikkee tëgg gañ koy tëggal ah bàkk wañ koy bàkk mooy bàkk bi salaatul faati bàkk la fu ñu ko bàkkee mooy ba mu fekkee gaa yi tëju mu julli ci ñoom wala boo am ñu bëgg ñu julli ci ñoom mu génn kooka nag fañ ko joxee ndigal allahuma salli ala sayyidina muhammadin pour mu génne gaa yi mooy salaatul faati moo tax la nga koy gis noonu kat mu mel na kii fekk dëgg bu amul na moom salaatul euh, xaq salaatul xaqaayiqi du xam jawharatu kamal du xam yàqut xaqaayiqi doo ko gis ba booba tijjee ci la euh, surootul xaqaayiqi génn ci la yàqutul xaqaayiqi génn ci la aynil maarif génn maa ngi nga dégg li ma wax <laughs> loolu ci julli googu salaatu fati ndax daf ne faati xaatimi naasiri haadi kon ñaat la kon nag e, xam dalee yi ak daane yi dafay xam boo nekkee ci gàmmu gi warax xaayaan xaayaan ku dégg séeré xam nga xaayaan dafa am ay pësin yu ñuy def soo xamul pësin bi fekk na gaa yi génn yow fi nga nekkoon ci ëtt boobu ndax ci xam nga boo boo demee ci eh, bi maanaam bël kii maanaam eh, eh, kii njëkk ya njuli njëkk ya ah boobaa dañ koy defal lël boo xam ne ay fanweeri xale ñeent fukki xale ñu utal ko ŋaa ñu utal ko benn xumus maanaa koo xamante ni moom mooy wutu xale yi day def ay feem yoo xam ne nga foog ne ay kii ba léeg-léeg mu def loo xam ne xel li ñu ñu ne maama nga ñëw de muy wuu <laughs> léegi nag soo xamul feem yi yow <laughs> loolu dafa am nag ci boo demee ci xaayaanu séeréer yi fii mu ne nii ngay defee danañ am nangam da nga xam xaayaan lu ko ma rek loo may nga dee yow ah du ma séeréer de xam naa loolu <laughs> allahuma yow allahuma ngi dem ci beneen salli wa sallim defal salaatu ak ci kan wu yoon xaala asrafil xalaayiq yi ci ki gën a foor ci li yàlla amal maanaam netaal yi al insaniyati wal jaaniyati bu ñu leen boolantee ka ca gën a foor xam nga kon li ma ki kon yaa ngi bëgg a kii jullit gaa nga bàyyi ko ci wóorutu xaqaayiqi ñëw ci yàqootu xaqaayiqi léegi nag mi ngi bëgg a génn si ki nga xamante ni mooy aynil maarif kon jullit mi ki nga moo gën a foor ci bépp netaal buñ ne netaal nag te mooy insaanu kaamil moo gën a foor netaal moo xam netaalam nite la wala jinne la defal ma salaat ci kooka ñu ne ko nga ne mooy kan kooku mooy kan mu ne ah, saahibul anwaar yi mooy borom leer ya alfaqirati leetul titre leeru titre yépp ay leeram ndaxte moom fu leer leeree xeer ca leeram nga lañ la leeralee xeer defal ma salat ci kaw allahuma yow allahuma salli wa sallim alayhi defal salaatu salaat ci moom waxala alihi ak alom ba waxala awlaad yi ak ñi nga xam ne ñoo foccee ci moom wa aswaaj yi ak ci peeram ya wa suriyat ak sëtam ya wa ahli bayt yi ak waa fameem wa ixwaan yi ak i mbokkam moo ñan mina nabiyina ñu ne ay nabiyu lañ wa siddiqina ak ñaa xam ne mooy tooy na mooy yónent ak wali yi defal ma ko xam kon ci xay man ak képp koo xam ne amana gëm na ci moom ak ku gëm rek defal salaatu ak salaam ci moom wa at mu topp ko nag ñan ci ñan minal awalina mag ñu njëkk ñaa njëkk wal aaxarina ak waa aaxarina bu fekkee ne foofu la minal awalina may daayatu awalina wal aaxar ak daayatu aaxarina ñoom ñëpp ku ca nekkoon ca groupe ba bokk topp ci moom boole ko ci salaatu ak salaam gii ma lay ñaan ci ñoom ma taxaw ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu julli gi jeexagul na